d'accord nañu ñu daal di dàq Aminata Touré am na juróom ñaar ñoo xam ne ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi nag nee na coalition wàllu Sénégal waa PDS ñoom nag ñoo jàppale Benno Bokk Yaakaar ngir nag ñu mën a dàqee Aminata Touré ci Assemblée nationale waaye nag moom Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite woon ci élection législative yi liste Benno Bokk Yaakaar bi nee na ci dàq gi ñu ko dàq waaye nag loole du tax maanaam mu yaacaaral dana continuer li nga xam ne mooy ab xeexam lépp Macky Sall la waaye nag na ko leer ne ñetteelu candidature loolee moom du amee ci réew mi jaay doole gi di réew Quotidien nee na li nga xam ne moom la ñuy def Aminata Touré rafetul jaaduwul te nag loolee tegewul fenn maanaam tegewul ci lu jëm ci wàllum yoona ndax Aminata Touré amul benn yoon boo xam ne wax na ne démissionné na ci parti bii nga xam ne mooy APR waaye sax bu loolee lépp weesoo coalition Benno Bokk Yaakaar mooy yóbbu Aminata Touré ci Assemblée nationale te coalition ak parti politique maanaam wuute na loola moom professeur Ngouda Mboup nee na nag bu ci li nga xam ne mooy àq li nga xam ne mooy Ngouda nee na Aminata Touré am na sañ-sañ nekk ci ab groupe ba mu neex ko mu daal di génn te Aminata Touré non inscrite te amul fenn fu ñuy firndeel ne Aminata Touré dafa tekk ndomal tànkama ci parti bii di APR yéenekaay gi di 24 ñu koy fekk fa Aminata Touré nee na nag dàq nga xam ne moom la ñu ko dàq assemblée nationale tegiwul ci yoon jalgati yoon la jalgati loi la waaye lépp Macky Sall la Mamadou Lamine Diallo nee na lii nekk ci réew mi waaye tamit la boo xam ne dañu koo def démocratie réew mi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu règlement intérieur bu assemblée nationale dañu koo daal di salfaañe dañu koo daal di saax-saaxe yéen kaay gi de Le Quotidien ak La Tribune nee na dàq gi nga xam ne moom la ñu dàq Aminata Touré ci assemblée nationale ñi nga xam ne ñooy waa ñoom nag ñoo ci waa Benno Bokk Yaakaar maanaam PDS ñoom dañoo jël seen revanche journal bi waa APR bind assemblée nationale daal di sàkk ñu daal di dàq Aminata Touré waaye nag loolee nga xam ne moo nekkoon càkkute fu APR loole nag daat nañu koy am ñooma yéen a kaay gii di Walf Fadjri nee na coalition Benno Bokk Yaakaar ak wàllu Sénégal ñoom ñoo daal di lëngoo daal di ki nga xam ne mooy Aminata Touré waaye nag moom madame Aminata Touré nee na amul benn yoon boo xam ne dina deltu ginnaaw ci mbir mi te li nga xam ne moom la ko yoon maye maanaam dina ko def journal bi nee na bu ñu waxante maanaam Macky Sall ci boppam ma ngi def erreur yi nga xam ne moom la Abdoulaye Wade defoon journal bi de la témoin nee na démb ba ñu wootee bureau assemblée nationale ngir nag dàq Aminata Touré Mamadou Lamine Diallo mii nga xam ne ci député wàllu Sénégal la bokk moom dafa voté contre maanaam àndul benn yoon ci dàq gi nga xam ne dàq nañu ko madame Aminata Touré journal bi de Le Quotidien yor yora nee na lii nga xam ne moom la ñu def Aminata Touré loolee nag dafay firndeel ne maanaam état wuyu la ñu yore journal bi du L'Observateur ci xëtam mu njëkk nee na Mimi démaquillée journal bi du Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Malick Gakou moom nag nee na Macky Sall bu fi jéemee forcé troisième candidature maanaam danañu ko génn réew mi le pays askan wi ñoo moom réew mi du ñu bàyyi Macky Sall di yàq réew mi te nag Macky Sall waxante dëgg maanaam àq ak yelleefu askan wi daf koo daal di salfaañe daf ko piétiner waaye démocratie réew mi tamit Macky daf koo yàq yéen kay gi di Walf Fadjri nee privé bu Sénégal ñoom nag ñoo ngi woo acteur politique yi ñu daal toog ci taabal daal di balay bëy di wéy mbuusa balay affrontement di am te nag bu affrontement amee ci réew mi loolee musiba lay doon la la nguur gi waajal jamono jëm ci wàllum recrutement takk der yi ma ngi mel ni tulleeg male ndax nag ministre de l'intérieur Antoine Diome lu toll ci ñeenti junni ci policiers yoo xam ne moom la bëgg recruter yéen kaay gi di réew mi ko dajee ñu xëy fekk fa Seydi Gassama muy wax ci lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi maanaam wàllum justice moom Seydi Gassama mi nga xam ne moo jiite Amnesty International section sénégala nee na justice bu tëddee njaaxaanaay justice bu moom boppama justice bu indépendante amul ci Sénégal naam nag am na ay magistrat yu moom seen bopp waaye bu ñu waxantee dëgg mooy yoon justice bu indépendante <laughs> maanaam amul ci réew mi yéen a gi ñu xëy fekk fa Birahim Seck nee na justice bi bu ñu bëggee nag mu moom boppam il faut ñu andi ay réforme yéen a kaay gi tey di réew mi ko di jee moom Seydi Gassama nee na commission nationale de réforme des institutions dafa am benn kuréel boo xam ne moom la ñu fi teg ngir nag ñuy saytu lépp loo xam ne jëm na ci ay réforme kuréel googee nag ñoom defoon nañu ab rapport wax jafe-jafe yi nga xam ne justice bi am na ko ba pare def ay proposition de réforme waaye nag proposition yi nga xam ne mooy tax justice bi indépendante moom boppam proposition yooyu yëpp Macky Sall daf ko daal di sànni loolee nag mooy firndeel ne Macky Sall ci boppam moo bëggul justice bi indépendante yéen kaay gi de la sa sëqët mu njëkk mu ñu fekk fa Mamadou Talla ministre bi ñu dénk wàllum collectivité territoriale yi nee na lu jëm ci wàllum fonds de dotation bi état bu Sénégal séddale na lu jege vingt-huit milliards maanaam mairie yi yéen kaay gi de libération xëy yóbbu ñu ca mairie bu Kaolack journal bi nee na nervi yu Serigne Boub yi dañoo agressé benn journaliste Dakaractu bu tudd Moussa Fall ndax moom Moussa Fall moomee nag dafa demoon ca mairie bu Kaolack ngir nag lu jëm ci wàllum délibération décision conseil municipal bi daa di wane carte presse am ñu ne ko doo fi dugg si la ñu ko agressé daa koy gaañ waaye nag ñi nga xam ne ñuy waa ñoom nag sant nañu kii di Moussa Fall ak ki nga xam ne mooy patron ñu daal di porte plainte Serigne Bouba yéene kaay gi di Rewmi Quotidien L'Observateur Libération xëy duñu naan ñu ci waaxu Sénégal yi maanaam ci géejug Sénégal gi jàpp nañ fa benn bato boo xam ne drogue moo sa nekkoon drogue bu garaaw bi maanaam cocaïne journal bi nee na lu ëpp huit cent kilos la ñu fa loxo waaye nag bi ko xayma ay milliards yi milliards la bi di Libération nee na am na juróom ñaar ñoo xam ne teg teg nañu leen loxo ñii ay doomu Italie lañ ñii ay doomu Ghana lañ ñii ay doomu Nigéria lañ yéen kaay gi réew mi quotidien nee na rappeur bii di Mortala Gaye ñu gën ko xam te ni dofa yóbbu nañu ko kaso Maham Diallo moo def lu ni mel waaye nag la ñu koy tuumal mooy lu jëm ci wàllu menace de mort division de fausse nouvelle tooñ ay magistrat yéen kaay gi di sunu lamb xëy di ñu xibaar naan ñu Gris Bordeaux kombaam bi nga xam ne moo doon dox digganteem ak Ama Balde te Ama Balde blessé Gris Bordeaux dafa bëggoon beneen adversaire waaye nag loolee nekk ndax teg si